mooy li ma la wax xam nga suñ ne dañuy sensibiliser jigéen ñi mhm. ñu gën a bàyyi xel seen diine mhm. seen diine bàyyiwul fenn seen diine dana dem ci nu ñu nekkee seen biir kër mhm. seen digganteeg seen borom kër yi seen digganteeg seen njaboot yi waaye seen digganteeg seen bopp seen bopp mooy ñu xamaat ni jigéen ku am valeur la ku yàlla valoriser la mhm. koo xam ne dafa bëggoon mu nekk royukaay ci àddina bi mhm. ndax moom dañuy wax ne bu góor jëlee benn yar jigéen ñaari yar la war a jël mhm. ndax yaru boppam ak yaru njabootam bu ji góor amee benn yiw jigéen ñaari yiw la war a am ndax moom ci boppam dafa war a yiw jariñoo ko mais dafa war a yiw wone ko pour keneen roy ci moom euh, li nga wax ni dafa bari ci réseaux sociaux yi jigéen ñoo xam ne Euh, yi mujjee génn sax ay TikTok ak Instagram ak yu mel noonu. Mhm. da ngay gis ñu ciy mel melokaan yoo xam ne ak wax seen kàddu. Mhm. di wax baat yoo xam ne bill vulgaire na trop. Mhm. waaye baat yoo xam ne jaaduwul woon mi génn ci jigéenu jullit. te li ñuy gën a déplorer mooy. Euh, jigéenu jullit ñi ñoo ci ëpp. dëgg yàlla neexul. waaye il ñu reconnaître ne jigéenu jullit ñi ñoo ëpp ci ñuy def lu mel noonu. ndax li ko waral mooy njaboot yu ci bëree bari wala boog responsable njaboot yu ci bëri. Mhm. ittewootuñu yee seen doom yi ci seen wàllu diine. Mhm. seen wàllu àdduna lañ gën a ittewoo ko seen diine. Mhm. moo tax ñoom duñu màggaale xam seen diine. ba tax na lu ne mën nañ cee dugg. sol lu leen neex. Euh, di wax lu leen neex. di mhm. def it lu leen neex. Mhm. te loolu ñuy def di ko wax di ko sol. Mhm. defatuñ ko ci secret mais dañ koy weer mu fis feng. ni nga ko waxee ci réseaux sociaux yëpp foo dugg. gis musiba. léeg-léeg ngay tàppe pour seet dara di recherche rek. loo gaaw gaaw rek da nga gis image boo bugg ta xool. Euh, nga xamni man damay damay wax ne il faut nga gëm mhm. ba taper recherche ba paré mhm. doog a mën a bind mhm. su dul lol da nga gis lo xamni taxlo wona jog a ko na dañu bon dañ koy jël exposé ko ci buntu bi dug assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julli di mbokki talibé ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan sunu borom di ñu defal jamm fu ñu mëna nekk suñu hikma bi nak tay day wax ne al ishaatu yu alifu al xaqidu wa yanshuruha al ahmaq ويصدقها الغبي حاول أن لا تكون أحدا من هؤلاء الثلاثة حكيم bi nee na ay rumeur mooy ay xibaar yu siiw noonu ñu di ko wax di ko coow te amul benn tegtal buy wane ne dëgg la wala du dëgg mbaa bu doon dëggit rafetut te tubaab bi ko tudde rumeur nee na ku xaw a am coxorte ci xolam moo koy taalif moo koy sos waaye ki koy njëkk a tasaare ko fu ne mu dem fa mooy ki nga xam dafa kon ah, xel mi daal neexut nitewut waaye ki koy gëm nga xam buñ ko tasaare ba accès ci moom mu gëm ko mooy ko xam moom dafa dof moom carrément mu ne la nag yow fexeel ba bul nekk kenn ci ñett yi bul sos ay rumeur bu ko sosal kenn ak lu lu ngeen seq seq problème sax bu mu tax nga sosal ko ko loo ko bañ bañ bul ko ko sosal waaye itam lu nekk nekk sa adversaire rek bu ko ko sosal boo ko susut ba noppi it fexeel ba bu ko keneen sosoo nit yow bu ko nangoo te saareel kenn nangam ji yow dégg nangam ji xew a xaaral ma envoyé la audio wala xaaral ma la lien mi ngi ci YouTube bi wala xaaral ma envoyé la vidéo bi it nga xool daal ne xaaral ma envoyé ko diw loolu musiba la bul nangoo doon ku koy tasaare waaye it bu dee da yow sosoo ko tasaare woo ko waaye keneen tasaare na ko mu ndox ba ñëw ci yow bu ko gëm te daal di koy supprimer su ko defee foofee fa yow fa la ñaawtee foo di yem teew bu doon yow dong du dox benn mètre waaye bu ko keneen doxalee ba mu agsee ci yow yow yamale nga ko fa loolu tuyaabu ju moo ci nekk moo tax xakim bi ne la fexeel ba bul nekk kenn ci ñett yi muy ko iñaan ki sos ay wala boog ku ki nga xam moo koy tasaare wala boo ki nga xam daa dof moom ba di ko dëggal nee na ñett ñi daal fexeel ba bu ci doon kenn ndax kenn ci ñoom baaxul loolu la xikma bindi woon di ma boo xam ne nag tey eh, defe naa ne jamono ji ñu toll rek lañ ko soxla ndax bari yaa nag koo xam ne non seulement sax li muy tasaare wóoru ko waaye day xam ne du dëgg xam ne du dëgg ba pare mu tasaare ko kii sos moom kooku dama jëlale ay waxam waaye ñëw ñu sos envoyé la nga xam ne lii ñu la envoyé du dëgg ba pare nga continuer di ko envoyé waat di ko gëmit di ci dolli loolu nag dara jaru ko ndax nit day bàkkaar yóbbaale la ci